rapport ak euh, interpellation monsieur Thiam bi moom mooy dafa laaj est-ce que ndax euh, on ne verse pas dans l'émotion en défendant certaines causes non c'est que problème bi moom mooy fii Sénégal amul benn liggéeykat du médecin du journaliste du keneen beneen corps bi nga xam ne dafa war a dem kaso parce que dafa def liggéeyam rey ñu nit sàcc ñu alalu jàmbur donc am nañ ay garantie de représentation mën nañ leen bàyyi ñuy dox ba seen jouru procès lu mu ko waxee sànq Babacar Touré mais ku yàgg suivre samay dossier des droits de l'homme la sur le plan international donc non dama lay jox exemple tey ñoom xoqatal tey situation bu ñu nekk tey jàpp leen ni yéen ñëpp vous êtes en sursis d'une certaine ouais. parce que une menace adressée à un journaliste une injustice plutôt faite à un journaliste est une menace adressée à tout le corps mm -hmm. de manière consciente ou subliminale d'une certaine manière loolu moo tax tey question sànq comme ni nga koy waxee deux principes maanaam tey fii benn journaliste bu ñu koy àttee yéen seen yoon nekku ci mais par contre fii man lu ma jàpp en tout cas ci suñu programme politique la mhm. bokk mooy dépénaliser délit de presse yi mhm. Sénégal dañuy ñëw di di appliquer benn code pénal bi nga xam ne c'est archaïque c'est doo du andi dérive depuis presque vingt ans ñuy wax ay dépénalisation dérive que on avance